les accidents de waaw accident nag moom métti na lool ndax santé publique la ñi nga xam tamit ñooy couche yi ci gën a métti ñoom daanaka sax ji euh, dugg doomu la waaye yaakaar naa ne tamit loolu war nañ cee mën a jël saafara. kon bu fekkee ne am na lim bu nga xam ne daal war nañ koo gën a firndeel mooy bi nga xam ne moo tukkee ci organisation mondiale de la santé daanaka li nga xam mooy accident li muy faat ci doomu aadama bari na. te téeméer boo jël rek daanaka fukki ak juróom-benn ci lay laal war nañoo mën a def ay jéego yu nga xam ne daal war nañu mën a seet ay saafara waaye tamit mën a fexe ci ndaje yu ñu mel ñu fexe daal jël ci ndogal tabax ay tali yu baax waaye tamit fexe ba lépp lu nga xam ne daal dafa gën a ñoŋal dem beeg dikk bi ñu gën cee taxaw ndax loolu kat mooy njariñu askan bi.